voilà c'est beaucoup internaute euh, ñu ngi une deuxième partie wu commission parlons parlons Kungel. Nous dalal tey monsieur Aziz Kamara, Aziz Camara di euh, membre comité directeur du parti démocratique sénégalais et en même temps président du conseil départemental des jeunes de de Koungheul donc nous ñu ràññee ko bu baax activités activité de développement pour la localité pour localité donc di gërëm yeen ñi nga xamné yeen yéen yéenay suñu suñu suñu sympathisant ah yeen ñi nga xamné lepp lu ñu def yeen a ngi tok ah di def 3w point info point point net ñu ngi gis seen message ah ñi nga xamné ils sont là ils sont à l'étranger aussi ñu ngi gis seen messages message seen message d'encouragement seen messages message de de remerciement aussi ñu melni ay ay Cheikha Camara ak euh, ñom gertu Ngara ah encouragement yi message yi ñoom Cheikh day Maodo sam yeen ñepp ah donc on peut pas citer citer citer toutes les personnes là ah mais vraiment vraiment yéen a tax yéen a ngi tax daal ah, ñuy gën a yokk ñuy gën a yokk lu ñuy def di jéem tamit yéegal yéegal niveau bi tuuti tuuti tuuti tuuti même si dañuy jàng rek on est on n'est pas on n'est pas quand même hmm, on n'est pas ni ngeen ni ngeen ni ma ko ñenn ñi di ñenn ñi di tooñee voilà euh, monsieur Camara ñu xuus léegi ci ci waxtaan wax seen parti parti politique waaw seen parti politique yéen seen parti politique dee na fi mu toll nii au niveau de Koungheul moom PDS daa mel ni moom moom fu ni toll nii dañ leen logal muuraake daal amatuñ mënatuñu wax dara amatuñ dara li nga xam ne activités yi nga xam ne ñu ngi def au niveau de Koungheul lan la qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce xew seen biir daal yéen su campagne jotul rek ngeen yëngatu. non suñu parti moi je pense que le PDS reste vivant à Koungheul le PDS reste fort non ah, non dire que non on n'est pas dans le combat. nous sommes euh, bon je pense qu'on sort des élections <laughs> donc on sort des élections il faut qu'on ait le temps d'analyser ces résultats et de voir non, analyse, nous avons reçu non analyse oui ça prend du temps mm-hmm. parce que nous sommes dans l'opposition nous sommes dans l'opposition aujourd'hui donc euh, le pouvoir en place mais ñom ñu wara a dérouler ñoo war a ñoo def animation ñun tey suñu rôle c'est est d'analyser euh, les les les résultats c'est est suñu rôle c'est de récupérer les les les méconnaissances. mais tay par exemple tey par exemple. waaw euh, ba élection yu passé ba légui nii waaw. ay man gisuma gisuma wa PDS fenn fuñu woté wootee xaaral dañuy def benn forum wala nañ organiser benn li au moins sax au moins sax benn euh, wax ak seen ñi nga xamné ñoo la jappalé won ci ci ci élection yi Euh, ñaar aussi waxaat ak waa population Koungheul ne leen kat perte nañ mais ñun Koungheul ah, du du du du élection rek du campagne rek mooy jot moo tax ñuy wër ak yooyu noonu proposer sax ay axes de développement même su ñu nekkul tey. mais mais je vais te dire une chose. je vais te dire une chose. Ah, bu ma foofu. parce que il faut analyser cette élection locale c'est extrêmement important mhm. parce que euh, nous sommes euh, sur suñu liste le PDS en face de Benno Bokk dans le département de l'État, euh, nous sommes ñu l'élection. élection soo xoolee nit responsable moyens Ils xam les moyens de l'État et je commence par Maya Kamal. je commence par Hassan Diop, euh, Sosse Diop, Seydou Sissal, hein, et puis Nelaya Sow, Elhaji Ousmane Seck, hein, euh, Digo, euh, <laughs> euh Digo, Mamoudou Digo, hein, et tant d'autres responsables de la paix qui ont les moyens du pouvoir contre une seule personne, un responsable de haut niveau, mais elle a Elhaji Mohamed, honorable député. Nous avons une élection locale.

moi en 13 800 voix. Cela veut dire que nous, avons gagné. <laughs> Le PDS reste le parti le plus fort dans le département de Kougal. Et je pèse bien mes mots. Les leaders de Benoît Kofayakar, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont les plus forts. Ils sont les plus forts. Ils sont les plus forts. Parce que personne, si j'ai 13 000 voix, si j'ai 5 000, Hassan ont 2 000, oui, mais si tu tu donc parce que parce que bon individuellement par exemple si on analyse les résultats on pourrait dire que individuellement nit ku nekk est kenn puis mais et puis élection législative mhm. <laughs> élection législative ils étaient pas ensemble le Pérez avec son leader reste le parti le plus fort ñoo doole ci est-ce que est-ce que politique euh, la venue de Parce Diop parce que parce que parce que Diop ministre. non posé non non non non non non non mhm. ah, actuellement il a pris que la base du le bon déjà c' vrai que période campagne bi maa géroon communication PDS faruma benn parti jamono ji may wax ak yéen nii Koungheul info laa faral sama directeur Mohamed kii Amadou Makhtar Sarr moom laay liggéeyal donc on n'est pas on n'est pas faraluñoo kenn donc ça c' juste un. un euh, métier bu ñuy def pour satisfaire pour répondre aux besoins des Koungheulois qui ne sont pas qui ne sont pas ñu informer leen à à temps réel pour ñu xam lan moo lan moo lan moo nekk fii nii donc li ma li ma li ma bëggoon wax fii nii parce que sooy xool euh, ci biir élection bi daf ngeen erreur bu fatale daf ngeen erreur bu fatale erreur euh, bu noonee da ngay nekk par exemple def campagne di wër di tëb nag ay dëkk yi jarul dem ak jar yee yee jaama dem yi jarul dem à mon avis peut-être que ni ni ni wa wa dominer parce que c'est village nga dem mais village donc l'erreur que vous avez commise l'erreur que le PDS a commis apparemment au niveau départemental c'est le fait de ne pas aller voir les villages. Je pense que village je au niveau de toi ou pas? non non là je suis d'accord avec toi parce que nous, analyse fait vous ñu dañu département suñu législative tout le département pendant dans tous les bureaux de vote c'est législative Nous avons délégation tous les bureaux de vote local effectivement que femmes sont ay communautés mais bon responsable dans les jours communautés ñoo wax bi qui des ndax ay responsable lañ comme yow donc moom it mi am yaakaar ci ay responsable la mais su ko xamee woon noonu su ko xamee woon ne responsable yooyu du def liggéey bi mu waree konoon mooy demal boppam sëm alaaj Mohamed Dieng fu mu teg tànkam ah Assane Diop mënu fa am dara El Hadj Mohamed Dieng fu mu teg tànkam Mayacine Camara mënu fa dara El Hadj Mohamed Dieng fu mu teg tànkam soo si Diop mu ci parce que ñu may ñun may waxal xam nañ bu baax may wax ndax ñoom ñëpp tey

beneen campagne dans le département mais au niveau de la commune vous n'avez pas vous n'avez pas battu campagne que moom vous l'avez laissé à lui-même. non dans la commune gis nga responsable est commune rurale ni ñu waxee non la candidat commune bi waxee. muy El Hadj Ali El il m'entend parce que man dañu toog en réunion à la à la permanence bon ñu ne dañu war dem dans la commune ou bien dans le département. Lui, il s'est déclaré volontaire à rester dans la commune parce qu'il peut gagner la commune. Bon, nous sommes, les terrains aussi, am avons comme El Ali wax ñu kon autorisation Mohamed Mohamed condition

mais Aziz il faut ma ànd ak moom dans les communes rurales parce que moom moo xam àll Aziz moo mun a wax ak waa àll bi moo xam ban discours la tenir dans chaque commune rurale dans village bu nekk ak lu ñu fa war a wax Aziz moo yàgg ak man moo xam li ma bëgg ak lu ne sama xol. di d'accord ak man ni y a un problème. waaw ñoom seen biir diggante El Hadj Mohamed ak El Ali diggante yow aussi ak El Hadj est-ce que amul ben conflit bi nga xamné ngi ngi ngi ngi ngi mu ngi seen bir parce que euh, euh, tey ji tay on voit avec avec El Hadj suñu suñu grand lan c'est c'est un grand que je salue de de de passage hein. c'est un grand la sama xarit c'est c'est c'est quelqu'un quand même qui n'est pas avare en conseil euh gissone euh, tey ji tey nii waa APR tasaaroo ñu ñu amee problème ñoom seen bir conflit boobu ñu yéen moom non il y a pas un problème interne bi nga xam peut être nit ñi xamuñu ko parce que El Hadj su ñëwee wax ni nit jàppale ko ci campagne yéen dem baax campagne au niveau du département dans les autres alors ngeen bàyyi la commune de Koungheul baax leen campagne foofu noonu non tay ñëwaat aussi ngeen ne non moom moo joxe autorisation bi y a pas y a pas non je pense que il a non y a sous roche peut être y a da ngeen ko wax mais non problème non man man su voilà, Mohamed Dieng voilà, je tiens à témoin tout le peuple de Koungheul ou bien toute la population de Koungheul ou bien militant PDS yëpp li may wax xam nañ te d'abord il faut qu'on revienne il faut ñu revenir sur la candidature du PDS Alaaji Ali lu ko def candidat pour PDS en tant que le candidat c'est important parce que man mii di wax j'étais candidat man léegi man dama jàpp ne yow peut-être amuloo gëdd amuloo ci ci ci ci ci parti bi ñeneen ñi kii tamit amuñu gën ci parti boobu ba waral. ñoom ñu mën leen ñu jogante ak ñeneen. ndax foofu laay ñëw. donc El était mieux placé que yéen ñoon ñoon ñëpp quoi. non est est non foofu laay ñëw c'est-à-dire que c'est pas le mieux placé mais euh, quoi qu'on dise je me jette pas de fleur honnêtement mais aujourd'hui li li ma def ci politique ak ngël néew na ay jeunes yu ko def jaar-jaar mu am ci politique néew na ku ko am ci jeune ci jaar-jaar je m'excuse nag ci ci ni ma waxee parce que c'est un peu dafa ëpp quoi mais je m'excuse vraiment pour ñu may seetaan ak ñu may déglu quand les locales sont venues ah locales yi bu ñu ñëwee tag mais dans le PRS. man je suis membre du comité d'experts du PRS. <laughs> donc j'ai suivi tout le processus de préparation des locales euh, toutes les circulaires yi ñu génne man donc le parti bi lu muy doxee kenn gën ma xam euh, quand quand il s'est avéré de, de trouver eh ben d'abord euh, coordination di di coordonner leen di ko xam nga bon nous avons proposé na fi ngoog comme coordonnateur ñu ñu ñu def na comme coordonnateur d'action obligé le comité électoral ñu ko war a un candidat jërëjëf bon nous nous faisons le candidat de PS. j'ai interpellé le député en personne <laughs> mais mais il nous a expliqué non non y a rien c'est pas le parti qui a décidé elle Ali, nous, donc nous nous la candidat pour la mairie de nous, ne mais ñu ne ñu ne ko ñu ne dañoo bëgg a nekk candidat pour la mairie de Koungheul ak donc ñu dem euh, man ma nekk candidat El Hadj Ali nekk candidat Pam <laughs> Ndiaye nekk candidat Omar Faye nekk candidat euh, Amel Ndiaye nekk candidat ñu nekk cinq candidats ñu ba maintenant ñu décidé ne mais cinq cinq candidats yi ñu ñoom ñooy décidé pour ñu.

man euh, dafa am man damay respecté discipline parti sama parti ak sama responsable su waxee dara mun naa ne ko ah lii moom a gënal de waaye nag su insister dama lii laa bëgg ma fekk man loolu laay doxalee ak Mohamed Dieng soo gisee maak Mohamed Dieng ñu yàgg ànd c'est parce que loolu la chose su fekkee bëgg na dara lu ma neexul dinaa ne ko diw li la neexul ndax mais su dëgëree ci mu kàddu boobu ma fekk ci ko ci kàddu et loolu laa doxalee ci candidat bi bu fekkee man maa a

bu am expérience dans la gestion de la mairie ak El Hadj bu soog donc man fait kuréel moo ma mais j'ai voté pour Omar Faye Omar Faye am trois voix El Hadj Aliou am deux voix donc El Ali après ñu ne kon Omar Faye muy candidat mais lolu qui vote ah, pour euh, le candidat choisi. par le parti le au niveau local. Dans le le parti n'a pas de candidat. je pèse bien mes mots c'est Yusuf. Diop dans le dans le parti à part les députés, nous, nous ñoo fa mën de ñoo pour am tomb tànk parti de la jógee kon je prends à témoin ku le parti n'avait pas de candidat parce que j'ai assisté à toutes les réunions préparatoires et j'étais membre de, la, de la commission le parti avait demandé que localité bu nekk

parti que moi, à envoyé. émissaire eh, eh, non L'autre, ça a été fomenté par Youssou C'est tey El Hadj je suis su candidat ah Mais c'est grâce à Yusio. Diop ndax instant nous wax qui était le président de la commission nationale chargée des élections instant il était en voyage à l'étranger quand on est sorti ils ont envoyé un mail.

très sincèrement ne j'ai pas voté pour lui pour plusieurs raisons c'est le monde moo ko c'est un jeune frère parce que c'est un jeune frère mais il y a autre problème. mais deuxième chose deuxième chose parce qu'il faut am forum. xam importance parce que nee na euh, kenn soutenir mais avant ma ñëw si si si soutien quand il est devenu candidat ba pare mais pour sécuriser mon sa candidature bu ñu ne parti bi demandé kan mooy nekk mandataire El Hadj Mohamed Dieng lañ woo moom la parti bi woo ne ko kan mandataire dans chaque commune pour la commune de Koungheul El Hadj Mohamed Dieng a proposé Youssou Diop pour nga xam ne Youssou moom ma la liste

et ensuite bu y' a une euh, euh, pré-campagne jour où au moins 200 ci transport ñu ci euh, chef de délégation quand il est retourné en Suisse il a laissé une équipe pour faire un à porte argent de poche jox leen auto ak essence ñu wër dëkk bi pour def campagne kon kay man jëng la soutenir buñ duggee dans la dans la campagne électorale euh, moom El Hadj Ali moo njëkk initié marche ne moom la Gueye foog ñu génn ñu population ko ngeen gis ko ñu def marche autour du marché du marché et cetera mais mais jour boobu Mohamed Dieng dépassé na plus de 1 million. C'est man il je ci lu ma leer jour rek jour def marche jour eh, ay 10 000 ay 1000 francs je suis témoin hein? donc nous, dem ba ci biir campagne encore am na foo xam ko 500000 on le sait mais victoire mais ensuite se a des petits élection campagne quand on a voulu mais ñun dañ ko jàppale ndax man bu am sama financer François mais dans son quartier de dépensé presque 200 000.

le des minimum, il a perdu 2 millions. Et je pèse bien mes mots. Et en fin de campagne, de la veille de la campagne, mais lui, en, tant que mandataire, le parti lui a remis 500 000 millions de pour la pour le mandataire et représentant dans les bureaux de vote. C'est une motivation. Mais le mandataire là-haut, pas je mais 500 millions, il faut le 500 millions fan donc pour dire que. dire que cest à que nous nous cest à candidat. essayez les parce vous êtes les euh, de ce parti là Mohamed Dieng hein, député maire moom mag il est plus proche de la retraite hein, que que que continuer à faire politique Nous. fekkee PDS yow yaa fa nekk yow Youssou Diop El Hadj Alioune il était votre candidat à la mairie jéem na arrondir les angles xool lan nga ni defee ba trouver terrain d'entente comme ni ñuy wax le linge sale se lave en parce que y a un problème am na benn problème bi nga xam ne kenn xamul lu mu demee mais xam nañ ne entre El Hadj El Hadj El Hadj Ali ak El Hadj Mohamed Dieng ñoom ñaar am na problème fa nekk. man de si sama xam-xam bu gàtt si sama xam-xam bu gàtt waruma waruma ko woon wax sa ci rajo wala télévision wala internet si sama xam-xam bu gàtt dafa am benn xaalis bu séqoon seen diggante ñoom ñaar huit cent mille ñu dem élage ali nootoon gerte parce que c'est un grand producteur d'arachide macha allah kaar kaar bàyyi kaar la bay day bay mu ngi bay ba nawet wàcc mi nootoon gerteem ci El Hadj Mohamed Dieng Mohamed Dieng bu mu koy fay xaalisu gerteem nag ñu ngi récupéré waale huit cent mille ah soo ma yoree xaalis ma war laa fay xaalis ma ne la ah sëñ bi yaa ngi ma yoroon ñoo ko déggandoo. donc l' exclusivité. loolu exclusivité c' est c' est que El Hadj Aliou Ndao hmm, dafa yorloon xaalis El Hadj wàllu noot gerte nga waaw ci la ko tiré ci la ko tiré li loolu apparemment man man man laa Aziz loolu ça n'engage que moi loolu man la engagé parce que maa yaa parce que man gisuma ban problème moo war a am diggante Mouhamed Dieng ak El Hadj Aliou parce que tey Mouhamed Dieng amul fu mu jàppale woon El Hadj Aliou la je témoin donc tey loolu rek laa yaakaar ne moo war a nekk problème ci li nga wax ci euh, dans les c'est-à-dire que moom tey lu woo war a nekk taxawaayam il moom warul xaar moom métier moom warul xaar na fi ngoom député non moom il est jeune il a des ambitions dans la politique c'est lui qui doit venir en ak hein su su ko mënta def man dinaa ko def en tout cas je vais tendre la main dinaa ko tendre la main ni ñëw ñu ànd ndax si si élection locale yi passé dañ amoon ay frères de parti, ce sont des gens qui sont qui sont des militants convaincus du parti démocratique mais je prends parce que c'est important des militants des frères qui ont recul ça m'a fait mal parce que dama mais moi aussi dama choix politique moi man je man man du ma dem jusqu'au bout su ma amee lu ma métti mun naa ko wax mais su jeexee damay bàyyi tellement comme ku mel Pape Ndiaye Diaz c'est un directeur d'école ak ku mel Diafara Sadiq Fofana c'est un militant convaincu de première heure du parti démocratique sénégalais suma grand la Diafara waaw ku mel ni Moustapha Sey directeur d'école à à Sos c'est un militant convaincu du parti démocratique sénégalais je pense que man fu may invité El Ali moi que nous avons un groupe de jeunes dynamiques et conv qui sont des militants convaincus yoo xam ne mën na nekk benn socle boo xam ne mën nañ pour relancer le PDS à Koungheul man El Hadj Ali Youssou euh, Moustapha Seck Pape Ndiaye Diafra Hein? Fini top. fu ñu toog di di gëstu di waxtaan poser et actes poser des stratégies ça permet au pères de de de se relancer. moi je pense que tay mom mon la wara la mais souvent tay wax ne wax ou bien non non les militants sont dans la commune mais militants

Euh, au moment où il était en Suisse chance à l'étranger nous sommes restés à Koungheul et on a tenu le flambeau Nous sommes suñ téewutoon ps Nous du mën candidats. ñëw ne day candidat ps kon daf ñu war gërëm su nous

Mm. parce que mm. c'est important de clarifier. Ah, mais comme wax rek li mais juste perspective euh, perspective je pense que il y a un amna lo xam ben ben élan bo xamné lance lancé nañ au niveau national ni c'est le mouvement fippu fippu pour vraiment jotaat réew mi sa loolu ci nekk. Ah, sa gox góor gi sa góor gi yëpp. waaw temps yi non non non sonal na waa dëkk. sa ñun aussi dafa laaj ñu ñu fippu ak ah, ngol euh, tout le monde c'est c'est que APR ni mu géré ak ngol ça ne marche pas c'est des querelles des responsables de l'affaire ils n'ont même pas ils n'ont même pas le temps de poser des actes. et je vous demande je vous pose une question. question pour vous. Je bëgg a depuis depuis mais xam nga Aziz Aziz Kamala. day par exemple APR le maire c'est c'est c'est euh, le président du conseil départemental de de c'est c'est c'est c'est c'est Assane Diop. Mm-hmm. Assane Diop mm-hmm. premier adjoint. bu conseil départemental Aziz Camara mais kii euh, du moins Amath Suzanne Camara euh, Amath ak Aziz mënta indi combat bi nga xam ne bu loyal la bu dëggu ci moom su fekkee day janoog ses frères ses frères de sang xam nga ku nga loyal il se pose cette question là mën nañ ne yow combat boo la da nga koy mëne sax ak ñoom Mbaye na yooyu sera pas un combat sincère parce que après tout vous allez vous retrouver après tout yéen a nekk est-ce dynastie dynastique Camara boobu noonu. yow Pa euh, Aada ah que je salue de passage ah moom moom suñu papa suñu papa ju baax la euh, Amathou Sane Camara Mayacine Camara ak euh, monsieur Camara bu yéen yéen yéen ñooñu noonu noonu. yéen a bokk ne da ngeen ñu tëjoo. non je pense que bi ah. soo ko waxtoo. waaw boobaa dama lay mere quoi parce que eh, yaa ngi soog a <laughs> non, tu, vraiment, il commence à être un professionnel. Parce que je pense que l'image journaliste, c'est qu'il faut poser les vrais débats. Non, ça, je te remercie très sincèrement. Il faut poser les vrais débats. Parce que ça, c'est une question vraiment qui intéresse toute la population du Congo. Et qui, qui m'intéresse. boo même, ne man tey mun dans le PDS loolu am des lu ma bari mais maa ngi ko lépp

je ne recule jamais dans un combat. Jamais. Je ne recule jamais dans un combat. Parce que mon sort, c'est pire là. Mais il faut me préciser bien affaire. Cette classe, cette famille, mais c'est le hasard qui fait que euh, m'a pas camarade la ça sama camarade. camarade la santé. <laughs> mais pas je ne ma pas sama papa nekkoon politicien ku jur sama yaay Ablaye Camara nekkoon politicien mais Senghor buy ñëw Koungheul pour la première fois léegi jamono chef de canton la famille de de de du chef de canton Ibrahima Ba ñooy nekk sama témoin sama maam Ablaye ku jur aar moo wax au nom de la population de Koungheul donc pour vous dire que ça c'est une histoire

donc kon kay c'est pas la même famille ñëpp xam nañ ñëpp du Koungheul la see ñëpp xam nañ ne sama papa ak sama maam Ablaye nii nii la woon ci politique. mais yàlla yàlla yow donc lu jëlee sama lu lu lu génne sama papa ci politique responsable sama maam la sama maam moo samp Birane Dem ku Birane Dem daane sama papa ku jur sama yaay donc loolu am na sama famille donc kon tey si Dieu fait que. Lulu, ñu ñëwaat il faut que nit ñi di bàyyi xel di interroger histoire aussi c'est important xam wax un sànq ne sama mam. moo wax au nom de du du de la population de Koungheul quand Senghor été à Koungheul Dieu a fait que sama papa en 83 bu Abdou Diouf di ñëw a sama papa moo wax au nom de la population de Koungheul Dieu a fait que am Ablaye Wade di ñëw Koungheul man damaa wax au nom de la population de Koungheul loolu xam nga lan moo ko waral ah, c'est de l'engagement politique dafa am ñoo xam ne politique daf leen intéressé am ñoo xam ne politique intéressé wu leen mais le maire Mayacine mais man maa ko dugal ci politique loolu il faut ma leeral <coughs> je suis son frère mais maa ko def responsable ànd jëf Jules Mbour peut être témoin

et ñoom ñu ñi nekkoon NDP e, MPD Birame Pathé Niang grand ji bi ndaw ñoom ba nga xam ne loolu ba bëgg responsable dans les jeunes ñu nekk jeune ñu war a am fédération waa ànd jëm Lamine Savané wax ni foog ñu am mag bu ñu jiite ñun ñoo tànnoon moom naka naka Mayacine bi nekk suñu secrétaire général daa ànd jëf mais ba même boo xam ne dëkk bi war na nekk departement mais dëkk bi soxla na ma bàyyi sama frère ñëw pour intérêt Koungheul sa ñëpp gis nañ ni je me bati battu pour le et ensuite euh, dama nekk nit koo xam ne euh, yàlla may na ma mat koo xam ne je gère les deux problèmes mais tey man local 2009 Mamadou Diouf di Kaaw mun na ma témoin local 2009 am na ay jeunes yoo xam ne dañu taxaw suma buntu kër boobu man maa ngi ànd ak ah, maa ngi ànd ak ak ah, di campagne bi dem ci àll bi di dugg ci dëkk Maya Sène nekk fële législative de de 2007 ba législative 2007 histoire man Maya Sène était candidat Ali Seck était candidat député pour le PDS. J'ai fait 21 jours, 21 jours dans le département avec euh, heures du matin 4 heures du matin je suis mais meilleur moment donné c'est important ah. day jaxase ma ak mayaas su ma amutoon xel mayaas yi xam na li may wax bu baax billaahi wallaahi wa taalaahi waxtu bi su ma amutoon xel tàggoo woon nag mayaas yi bu yàgg parce que am na ñu ko monté woon mais man dama ko won ci toujours début bi ma duggee ci politique ba léegi dama ko mu sa won ne ko su ma duggee sama biir kër bir kër gi temps boo ko duggee yaay sama kilifa mais su ma génnee ci buntu kër yi je suis responsable de mes actes et de mes paroles dama gëm lolu ba dem ba am indépendance ci loolu ak mom ñu ñëw ba 2009 mom mi nek candidat maire ñun ah, ñun ak ak ak nekk candidat maire ñu bari baye aji xaj ma resté ak mom di liggéey. nga xam dañ doon dem ba campagne bi ay jeunes billahi wa moo Diouf Kaaw mun na ma seede ay jeunes dañu taxaw sama buntu kër papa ne man du ma sama buntu kër papa man man foofu du ma fanaan un un jour ma dem wax ko sama papa yàlla ko yàlla yërëm xare ko àjjana xam nga ma ko papa mi ne ma naam ma ne ko man de dafa am ay jeunes yoo xam ne mayasin lañ àndal da nga dañ ma bëgg a ne nee nañ dootuma dugg ci kër jour boobu nga xam ne laa laa xam ne sama papa kilifa la il dafa woo dafa ma ne demal utal moo ci amal ñoo ma ci limal ma limal ko ci ay jeunes ñu woole ne leen Aziz ku laal dinaa ko feta billaahi wallaahi wa taala sama papa mi ci dëgg maa ngi ci fen moo wax Aziz fii kër baayam la ah ku ko laal dinaa ko fetal eh, eh, eh, avant may terminer parce que waxtu bi waaw je te je te fay confidence boo xam ne peut-être ku mel ni aji xadi moo ko xamoon wala ku mel ni aji faatu yàlla na ko yàlla ñëw man sama papa moo ma forcé ma dem PDS <laughs> sama papa moo bëggoon ma Yacine dem xam-xam maa si bañ mi ne ma Aziz kii dafa ñàkk fayal rek dama peres parce que Ablaye mu def ci réew mi man nekkoon naa parti socialiste mais kenn def ko ndax man samay doom ci Ablaye ñu bëri ci lañ amee liggéey xam nga jour bi may dem PDS sama papa kese la tànn du benn responsable PDS boo xam tànn naa ndax dem pour vous dire que

ah jox ko Mamadou Ndiaye tey problème de famille <laughs> donc man quand le débat politique se pose. je la cette conviction C'est conviction conviction lay tey nag c' c'est le hasard qui a fait que Maya est le maire C'est le hasard qui a fait que Amath est le premier président du conseil Donc moo ko parce que Rally na